waa tey dañ fi ñëwoon si ndigalu ministre de la jeunesse teewee ndaje bi nga xamante ni office chérifien phosphate dafa ñëw jox agriculteur u Sénégal mbaykat yi euh, juróom-benni téeméeri tonne engrais ñi koy rafetlu di leen gërëm bu baax parce que ñun xam nañu ni aveniru dëkk bi si mbay la nekk surtout ñun ñi nga xam ñu yore wàllum ndaw ñi Sénégal comme am nañu suuf am nañu ndox buñ ko utiliser yóbbu fa ndaw ñi dinañu am liggéey dimbali seen bop dimbali seen waajur loolu motax product bi mu ñëwé président décidé def kam domaine agricole communautaire Product xaarul domaine bi ñu tabax ko ba paré mais dafa ni avant loolu damay encadrer ndaw ñi mooy li ñuy wax groupement d'entrepreneurs agricoles ñu commencé bay pour ñu am lu ñu dimbalee seen bopp lu ñu dimbali seen waajur surtout contexte bi nga xamni ni lañuy wax contexte corona bi ñu xam dafa particulier loolu dina tax vraiment dina dimbali ndaw ñu bu bëri. ci liggéey bi ñuy def fii Sénégal ci mbirum mbéy mi di jàppale béykat yu ndaw ñi dañu gis ne ci mbas bi fi nekk ku nekk soxla na ku ko jàppale ñu joxante loxo pour suba euh, ñëpp mun a am lu ñuy dunde comme ñun ci wàllum engrais la ñuy yëngu ñu ne nañu jël ci as tuut li ñu am ñu jéebal ko béykat yi. béykat yooyu mun a dem bay mun am liñu dundé parce que mbass mi xamnañ né état ba ngi def limu mu mën mais mënul lépp. 600 tonnes la euh, wolof bi nak leeru mënu ma mais 600 tonnes lañ leen jox nga xamante ne dañ ko sédalé entre Prodac euh, CNCR ANRAC coopérative Sandiara ak SIPA Matam donc bo leen xoolee ñooñu yëpp danaka région Sénégal yëpp jot nañ ci. ci xayma technicien yi 600 tonnes yi euh dina jot.

ñu néméeku ko fan yi nga xam ne euh, nawet bi tàmbali na donc jàpp nañ ne ndimbal mi nga xam ne jot nañ ko te mu toll ci presque cent tonnes ñi war leen ko jagleel donc euh, ndiwal am na solo te ñëw na ci période boo xamante ne ñoom nañ ko ndax euh, soxla nañu boobu ndimbal te jàpp nañ ne dina dina leen jàppale ci li nga xamante ne moom la ci ci nawet